jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi déglu rajo réew mi FM quatre vingt point cinq kàddu gi di bàyyi ko fii ci euh, Sodida ci taax mi ñu duppee El Hadji Mamadou Lamine Bara Mbacké Falilou mbokk yi tey di euh, samedi juróom-ñetti fan ci weeru février atum deux mille vingt Abdou Khadre Seck moo nekk ci micro bi Mamadou Diaw Diallo nekk ci wàllu xarala gi. mbokk yéen a ngi déglu seen émission pencum réew mi mu nekk émission boo xamante ni dañ si ànd ak yéen samdi bu jot bu 15 heures jotee jàpp 16 heures maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu tey nag mbokk ñu dellu am mbégte daal di euh, fas yéene dalal waxtaan ak euh, Boubacar Sadio mu nekk euh, commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle à la retraite tey nag dañuy waxtaan ak moom ci lépp loo xamante ni jëm na. ci wàllum euh, insécurité bi nga xamante ni ñu bari ñoo ngi lam-laamee ne dafa am ci réew mi ak yeneen ponk yoo xamante ni ci actualité bi la jëm euh, commissaire euh, ñoo ngi lay nuyu ginnaaw bi ñu delloo am mbégte bu baax a baax ci wujj gi nga xam ne wusi nga ko suñu invitation bi. Abdoul Khadre maa ngi lay delloo nuyoo bi di la ko fay di nuyu sa auditeurs yi di rafetlu aussi teewaay bi fii di yaakaar ni aussi kàddu yi nga xam ni dina fi jib. dina amal euh, auditeurs yi njëriñ. jërëjëf euh, commissaire euh, Boubacar Sadio auditeurs yi tamit ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax ak auditrices yi nga xamante ni saa su nekk ñoo ngi bàyyi xel rajo réew mi FM commissaire fi ñu commencé waxtaan wi mooy actualité bi bokk na ci. Uh, jàngoro ji di nga xamante ni mooy uh, coronavirus mu daal di feeñ ci réewum Chine àdduna bi yëpp nag di ko daal di waxtaanee waaye fii ci réewum Sénégal dafa am fukk ak ñett ci étudiants sénégalais yoo xam ne dañuy wax ne dafa dañoo nekk foofu ca Chine daal di mm-hmm. fay euh, taga témbe ginnaaw bi ñu fa taga témbe tamit euh, ci euh, cérémonie levée des couleurs bi ñu génne di altine njiitu réew mi dafa yëkkati ay kàddu wax ne amuñu ay jumtukaay ngir indi leen ci réew mi kàddu yooyu nag naqari na sénégalais yu baree bari ba médiateur de la république di Alioune Badara Cissé di wax ne njiitu réew mi war naa soppi xoolaat décision boobu nga xamante ni jël na ko waajuru xale yi tamit ñoom tim janoon nañu ak taskatu xabaar yi ñaawlu kàddu yooyu nga xamante ni Macky Sall wax na ko yow euh, lan moo ci sa xalaat. Euh, sama xalaat mooy euh, di ñaan yàlla rek jàngoro jooju feeñ Chine mu gaaw a daal faju ñi ñu mën a am pexe yi nga xam ne vraiment dinañ ko arrêté ba nga xam ni dootul law te war a mën a tiital nit ñi kaddu kaddu réew mi njiitu réew mi ci sama xalaat day kaddu yoo xam ne euh, njiitu réew e xëy na juum na foofu quand parce que fekk ne da nga jiite ay nit euh, ay quatorze quatorze millions de sénégalais ñu tànn la ci ci coobare sunu borom nga jiite leen dafa am lu ñuy lu ñu lay yaakaare dañuy yaakaar ni xëy na lépp loo xam ne daal problème la war nga ci mën a auto solution donc euh, foog naa dafa juum ci kaddu yi au lieu mooy wax ni xëy na mënu ci dara mënoon na wax ne xëy na rek yëf yi effectivement métti na yëf yi tar na waaye daal eh, moom ak gouvernement ñu ngi ay pexe yoo xam ne xëy na dañuy ñëw wollu si sunu xale yooyu nekk Chine. bon mais am na côté boo xam ne aussi dinaa ko wax aussi je crois que aussi euh, ni ko ñenn ñi bëgg a dramatiser aussi je crois que euh, àggul noonu nañu yaakaar ni rek autorité chinois yi ak euh, autorité sénégalaise yi foofu ñu nekk si Chine xëy na ñu ngi jël motuwaay yëpp waaye nag ñoom ñi fa nekk ñoom ñoo xam lu ñuy dund ñoom ñi fa nekk ñoo xam lu tax ñu tiit donc fekk na ne danoo soxla pour ñu indi leen seen waajur soxla pour ñu indi leen je crois que c'est le devoir de l'État du Sénégal effectivement de réunir toutes les condition pour que ñu mëne a ñibbi si daal. Euh, état bi bu waxee ne euh, amul ay matukaay yan xeetu matukaay lay wax yan xeetu jumtukaay. bon man mënu moo wax exactement peut-être que xëy na euh, xam nga ne aussi day loo xam ne doo jël avion rek dem wàcc aéroport dugal leen ci biir indi leen. du mbiru xaalis daal maanaam. waaw non non warul nekk mbiru xaalis parce que bu dee mbiru xaalis la ce serait scandaleux non je crois am na ay technologie ay technique yoo xam ne même yooyu sax je crois que même Sénégal bu ko amulee Sénégal am na réew yoo xam ne am na coopération ak ñoom Chine moomu ci boppam na coopération ak moom parce que Chine na loo xam ne mu ngi koy liggéey Sénégal am na koppar yu yoo xam ne mu ngi koy jëlee Sénégal di ko yóbbu Chine. crois que vraiment war ñu mën a jàppale côté boobu quand même. kon président ci communication bi si la may jafe-jafe. waaw effectivement je crois njiit daal euh, du wax ni euh, mënuma dara je crois que parce que loolu day décourager ñii ñi bu boobaa xëy na yaakaar bi ñu am ci yow dafay tas. bu boobaa leneen ñu juddu rek dañuy ne ah mënu ci dara te loolu nag baaxul quoi du du du wareefu njiit daal. jërëjëf mm. euh, jërëjëf euh, commissaire euh, ñu daal di wax ba tey ci biir waxtaan bi ci actualité fan yi nga xamante ni moom la ñu génn dafa am ay rapport yoo xamante ni cour de comptes génne na ko rapport yooyu te yow yàgg nga fi gis tamit ay rapport yoo xamante ni génn nañ ko fi ñu bari nag ci Sénégal yi dañuy wax ne rapport la yoo xamante ni du mujj fenn yow lan moo ci sa xalaat sama xalaat moom mooy yàgg naa ko wax yàgg naa ko bind rapport yi nga xam ni cour des comptes na ko Euh, yaakaaruma ni euh, dina am muccantal euh, nit ñi xam ne aussi cour de compte aussi ay magistrat yoo xam ne yu xarañ ñoo fa nekk cest que doo nekk magistrat rek dem cour de compte am na leneen loo xam ne dafa war a dellu dafa war a dolleeku ci sa xam-xam pour nga mën a teew foofu nga mën a càmbar yi donc rapport bi génn na war naa génn bu yàgg sax parce que tardement bi sax moo ci warul rapport bu war a génn deux mille quinze juróom at après ñu koy génn du yoon je crois que ñu ñu war nañu xoolaat aussi nit ñuy liggéeyee man yàgg naa ko wax yàgg naa ko bind semaine bi passée rek wax naa ko. Mhm. Euh, dafa dul mujj fenn parce que d' abord euh, président aussi euh, na xoolaat aussi doxalinam daal parce que munoo jël ay magistrats yoo xam ne danoo xarañ ñëpp nangu ni danoo xarañ ñi ngi ñi ñuy liggéeyal mooy seen i peer xam ni danoo xarañ ñu def liggéey bu mucc ayib. ñu jox la ko nga war a ne léegi da ngay seetaat beneen commission boo xam ne day seetuwaat liggéey boobu je crois que loolu sax da nga yeb ñi nga xam ne ñoom ñoo def liggéey boobu yàgg naa wax ne rapport yi du mujj fen quatre-vingt-quatorze milliards yi wax naa ko du mujj fen euh, OFNAC euh, dossier yooyu mu jox procureur du mujj fen Petrotim du mujj fen lan moo tax du mujj fenn. du mujj fenn parce que président moo bëggul mu mujj fenn rek c'est tout loolu rek la moom si boppam wax na ni am na dossier yoo xam ne daf si def concom maanaam bu fekkee ni ànd ak moom Eh, xëy na mu seet nu mu la jàppale nu mu lay iire mais fekk na àndul ak moom la mu seet effectivement eh, nu mu la boole procureur. d' accord léegi euh, commissaire comme li nga wax ne du mujj fenn. Hmm. te sénégalais tamit yu bare bare baree bare ñu ëpp ci sénégalais yi dañoo njort ne du mujj fenn ndax yàgg nañ fee gis ay rapport yoo xamante ni mag Sall ne na moom moo ci teg euh, moo ci teg concam. Hmm. Euh, léegi corps de contrôle yi. Hmm. est ce que kon jox nañ leen seen wàccuwaay. ah joxuñu leen seen seen wàccuwaay à la limite sax dana leen yëpp te dañ leen doy edil daal. finalement da ngay da ngay laajte ana seen i njëriñ parce que ñi fa nekk ñëpp laa wax dama ne ay nit yu xarañ nañu si fonctionnaire di gën a mag si Sénégal la ñu bokk ñu def liggéey boo xam ne vraiment ñëpp euh, nangu ñu liggéey bu rafet la bon léegi nag euh, ñu jëbal la ko yow amoo loo ci wax lu du rek nga jël ko dugal ko sa tiroir effectivement je crois ñooñu seen bopp sax ngay njëkk a dina tax sax dootuñu sawar a liggéey daal te loolu aussi image bu bon euh, ngay joxe sa sa sa réew population bi dootuñu yaakaar si yow bu booba boobaa nii ne euh, dëkk bi kumba am ndey la kumba amul ndey et cetera vraiment c'est pas bon pour. Euh, kon lan moo tax Macky Sall tegoon fi nag pour xeex lépp lu jëm ci wàllum ger lan moo tax la ñu liggéey du ko jël jëfandikoo ko. Euh, bon euh, xaw ma exactement mais dama yaakaar man si sama perception bopp peut-être que ay mesures yu cosmétiques rek la quoi parce que moom waxoon na ni OFNAC pour ñoom ñi fi nekk la CREI yi pour ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon la CREI yi gis nañu ñaari fukki nit ak juróom la ñu la ñu la mais Karim Karim Wade rek lañ jàpp OFNAC bi nag musul tee kenn te du tee kenn aussi man maa la ko wax mais euh, xam nga tey par exemple tey soo xoolee président Macky Sall ak commission bi nga xamante ni wax na ko hmm. ñun ñu jàpp ne OFNAC ay magistrats ñoo fa nekk comme ni nga ko waxee ñoo mm-hmm. xamante ni tey euh, ñu xarañ lañ. Mm-hmm. léegi ñu xarañ boo leen tànnee. Mm-hmm. ba nga jàpp ne ñii nga tànn mën nañoo liggéey li ngi leen di liggéeyloo ñu bu ñu defee ab liggéey ba pare lan moo si jaraat càmbar bi. commission boobu. moom laa la ma ne ko commission bi vraiment. pour lan la si jub loo xalaat. sa ah, xalaat waaw li ma ci xalaat rek pour na na na saxal affaire yi rek la surtout pour que euh, suba euh, kenn et puis am na loo xam ne aussi en fait métti na man ma koy wax sama président de la république mais quelque fois il faut que muy ñeme jël ay responsabilités mu ñeme ci li li muy def. da see ñeme wut. voilà à peu près loolu laa parce que fekk ne nañ diw diw lii ak lii la def jëla ñi nga xam ne war a jubbanti ñu jubbanti la ñi nga xam ne dana war a yoon yóbbu yoon nga jox ko procureur li ci war ñu def ko mais dafa mel ni daal euh, am na lu des daal si sañ-sañam daal. d' accord matalewu ko daal. léegi euh, rapport yi bi mu génnee rapport euh, nag euh, bokk na ci bi ñu defoon kuddu bokk na ci bi si gën a fës boobu nga xamante ni fës na lool ñu jàpp ci jam si baaraamutuma Cheikh Omar ann ba nga xamante ni sax moom ma ngi daal ci kaw mm. Nafi Ngom Keïta mi jiite woon nag ay jamono te ñu jëlee woon ko fa. Mm. lan moo ci sa xalaat ci kaa boobu. cas boobu bon fekk ni effectivement rapport yi li OFNAC wax. am na te yaakaar naa ne am na parce que vraiment amuñu benn intérêt aussi di tuumal nit koo xam ne deful dara bon euh, Cheikh Oumar Anne def na deful ñu ko woon jox benn responsabilité fii ak mbir mi leerul c'est ça le problème. Hmm. question logique la daal fekk nit ki dañ ko tuumal. def na deful kenn amu ci lu ñu nee fekk na ma deful ñu jox ko ay responsabilité fekk ne def na léegi ne vraiment ñu bañ ko jox ay responsabilité parce que li ñu gis si moom jéggi na dayoo ba nga xam ne ñoom seen bopp ne nañ kii buñ ko jox benn responsabilité bon donc non seulement yow euh, defuloo li nga xam ne moom la ñu wax mais da nga def loo xam ne sax dafa safaanoo parce que léegi def nga ko ministre euh, de l' enseignement te boo seetlu ñoom ñëpp ku ci jàpp rek da ngay ne damay dem porter plainte euh, quatre-vingt-quatorze milliards yi nee na day porter plainte OFNAC Petrotim Aliou Sall fii la wax ne day porter plainte kii tam nee na day porter plainte ngeen baal ma daal je crois que dañuy fonto ñi ñi daal yooyu yëpp ay manœuvre de diversion la rek quoi Mhm. d' accord léegi mais mais même nag tey euh, li mu waxoon ci euh, kuddu ci rapport boobu euh, gis nañ tamit ne Cour de comptes moom bi mu génnee daf ko daal di daf ko daal di dëggal. Mhm. léegi est ce que jotutoon fan yi dafa am benn journal sunu xarit Mouhamadou Omar Ndiaye Mamadou Omar Ndiaye. Mhm. le témoin dafa bind ne est ce que jotut corps de contrôle yëpp ñu dajale leen daal di kos almet taal leen ndax seen ñàkk njëriñ. waaw bon. loolu d' accord ci taal gi. non d' accord ma ci taal bi. d' ñu jëlee leen. waaw non c' est à dire que nañ leen xoolaat parce que ñu ngi fi et tant que président baa ngi fi nii lay doxee. ah bon waaw non nii lay doxee léegi kay li am ba am mooy léegi vraiment ñu changer système beneen système ñëw fi ñu jox. corps de contrôle parce que li nga xam ne war nañ ko xaatim ci kayit yëpp niñ ko war a doxalee ak sañ-sañ yëpp mu ngi fi de waaye nag euh, fekk ni nag ñi leen yilif ñoo leen mayul pour que ñu doxal li ñu war a doxalee mbir mi aussi du mën a sotti du mën a sotti jaarul taal parce que en fait sur le principe effectivement am war nañu am njëriñ mais malheureusement amuñu njëriñ daal waaw mais mais mais bu fi président jugoon tey par exemple ñi ñu jàpp ne dañ leen di làq hmm. ëllëg buñ fi jugoon ñi fi ñeekaan mën nañ leen a topp waaw ah, waaw man leen digal ñu topp leen ñu topp leen waaw jërëjëf mbokk yéen a ngi déglu rajo Rewmi FM euh, tey ñu invité euh, commissaire Boubacar Sadio euh, commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle à la retraite <clears throat> ñuy waxtaane tey ci pencum réew mi mu am samedi bu jot bu 15 heures jotee jàpp 16 heures lu jëm ci wàllum ger commissaire mm. actualité la gis nañ ko ci réew mi waa forum civil fan yi jàll mm. ci seen bilan bi nee nañ Sénégal fi mu taxawoon 2016 mm. ba léegi ni puusul paasul lan moo ci saxalaat ci guerre gi ci réew mi. waaw guerre gi euh, bon nañu xam ne aussi euh, dëkk yëpp la am euh, seulement nag am na foo xam ne bu fa toll nag day nasaxal day nërmel économie réew mi. guerre bi nag pour mu jóge fii nag dina xaw a jafe mooy exemple li ñuy wax rek fekk ay nit ñoo mën a toog jël ay milliards lekk ko ñoom kott. ñoom ak seen i xarit ak seen i am di jàmm et cetera te dara du leen ci fekk aussi mais guerre gi day continuer rek day continuer rek. solution bi. solution bi ni ma ko waxee rek. mooy euh, lépp loo xam ne daal yoon dëkk bi am na tëral na ko comme sart pour ñu xeex guerre nañ ko appliqué waaw mais fekk ni nag dañuy làq ñi di jàppale ñi ku sàcc aussi ay milliards parce que euh, ñiy def guerre yooyu c'est-à-dire ay criminels la ñu ay criminels ñoo gën a yées sax agresseurs yi ñuy wax ko parce que da ngay jël ay milliards yoo xam ne tey ji euh, kaw ga am na jigéen yoo xam ne saret la ñuy jël pour dem mucc ci centre de santé ba balaa ñu àgg centre de santé ba xëy na sax euh, far euh, seen bakkan fi ay ñoo xam ne ñu ngi hôpital mun ñu faju euh, ak conditions yu bëri ñii nga xam ne seen dëkk amul ndox n'est-ce pas ñi amuñu électricité coono gi nekk si réew mi coono goo xam ne dafa tar ay nit jël sañ jël ay milliards di collecté dara du leen ci fekk vraiment je crois mmh. que moi je les considère comme des criminels daal. impunité bi Sénégal def lu ne weng te dara du ci fekk nan la ñuy def ba jógee fi ah li ñu def ba mu jógee fii bon mooy euh, ñu changer système rek de toute façon fekk ak ñi fi nekk la ci ñi ma gis ne ni ñuy doxale ni du changer ñeen di ñeneen rek ñoo xam ne vraiment dëggu ñu bëgg nañ seen réew te seen réew jarale lu nekk. amul benn jéego bu si Macky saal def. bon jéego bu mu si def mooy créer na euh, institution yi mais comme ni ñu ko gisee institution amul benn njëriñ mais pour sanctionner gisuma ku mu sanctionner te na ngeen seetlu Macky Sall fekk bu la sanctionner ay boo toppee ay weer rek mu jëlaat la recaser la encore. la preuve ñi nga xam ne woon sax ñu ngi woon si yeneen régime yi passé defoon ay jéye mais dafa leen jël mu recyclé waat leen. kon amatoo yaakaar ci Macky Sall nag ne mooy jubbanti réew mi. dara amu si yaakaar nag wax dëgg yàlla. waaw mun naa wax ma ni du ko def de te bu ko defee nag dina nekk mbetteel boo xam ne vraiment dina ma neex lool ko euh, jërëjëf euh, commissaire ñu daal di wax ci li nga xamante ni mooy euh, actualité la ba tey. Mhm. ci li ñu lay invité nag tey bokk na ci mhm. mbirum ñàkku kaaraange gi. Mhm. waaye actualité boo xamante ni mënuñu see ñàkk bañ a wax. ndax ci réew mi nga dëkk. lu jëm ci wàllum njëg yi nga xamante ni moom lañ gis ne dafay dafay yokk. Macky Sall waxoon année sociale ñu gis ne njëg yi ma ngi yokk. aussi sans explication est-ce que jë jàppoon ne bés dina ñëw ñëw sax révolte sociale am sa xalaat. bon révolte social bon en fait euh, loolu yàlla xam suba luy xew mais njëg yi yokk aussi sénégalais aussi euh, nañu waxante dëgg aussi euh, balaa ñu doon dugg si campagne yi ñi nga xam ni xëy na ñoo nekkoon si kujj gi ak ñeneen ñoo xam ne aussi a expert lañu waxoon nañ leen ni élection buy passé njëg yi dina yokk loolu benn sénégalais munu ko weddi bon mais xam nga ñi ñëpp aussi ku nekk xëy na euh, ak sa bëgg-bëgg ak sa orientation ak ki nga yaakaar ne xëy na ba tey yaakaar nga ne mu nekk si boppu réew mi dina ko doxal mais Sénégalais yëpp ñi avertir woon nañ leen ni que élection buy passé njëg yi dina yokku te effectivement gis nañ ko njëg yaa ngi yokku parce que am na bëri yoo xam ne waroon na yokku waaye nag ñoom dañ koo téewoon téyandi en attendant bañoon rek xëy na bëggoon soxla ay carte moo tax ñu bañoon def yenn yokk mais en fait la réalité la noo ko waxee tubaab yi ñu ko tubaab di waxee la la réalité nous a rattrapé njëgi dina yokk leneen dina yokk encore. Euh, ñuy wax ne banque mondiale ak FMI ñoo ne si ginnaaw. Ah, yàgg nañ nekk sunu gannaaw bi ñu ba léegi. mais ñooñu est-ce mën nañu yokkaloo. mën nañu mën nañu yokkaloo parce que ñooñu du ñoo xam ne dañ fi nekk du caaga ne danoo baax de déedéet ñoom fi seen i la ñuy sàmm. mais mais euh, commissaire pour man euh, li ma jàpp mooy amul benn njiitum réew boo xam ne euh, bëgg nga di yokk yokk yi dafa mënul ñàkk wala lan moo xew effet dëgg-dëgg. ah bon effectivement. si la ah, ma yokk noonu yokk noonu kese. waaw dafa am lu ne si ginnaaw wala dañu am problème xaalis. waaw am nañu problème mu xaalis kay am nañu problème mu xaalis et danoo leb loo xam ne daanaka dafa ëpp seen i capacité te danoo leb ay milliards yoo xam ne dañ ko dugal ci loo xam ne amul njëriñ donc te bor boobu da koy fay bor boobu fekk ne yow li ngay euh, produire amoo. lu lu nu toll pour mën ko fay mais tu es obligé nga seet feneen foo xam ne effectivement foofu nga jëlee xaalis xaalis bi foo ko jëlee feneen fu dul ci askan bi di leen fayloo impôt e, effectivement donc loolu moo tax njëg njëg yi di yokku impôt bi nga leen di fayloo ak ak taxe yi ngay def ci njëg yi moo tax njëg yi di yokku aussi foofu nga mën a taataanee xaalis boo xam ne da ngay fay say bor weer bu nekk il faut nga fay say bor Ah. loolu moo mais mais euh, commissaire yaa ngi wax ne euh, lépp xaalis boo xam da nga koy dugal fa amul njëriñ mais est ce que fi ñu dugal xaalis bi tamit amul njëriñ ndax euh, ay train express régional ma ngi fii amul benn kooku dama lay coupé amul benn njëriñ c'est-à-dire que waxuñu ni baaxul mais amul njëriñ amagul njëriñ amagul njëriñ voilà c'est ça du priorité daal voilà du priorité nécessité du du du priorité et puis du opportunité cest que mun nga am pré pré kii nu mu projet ne lii war naa ko mën a def waaye waxtu bi ma ko war a def laa war a calculer waxtu biñ ko def nag moo baaxul par exemple boo jëlee stade arène man je n'ai rien contre contre moom mbëri ko mais yàgg naa dénoncer arène bi nga xam ne moom la ñu tabax Pikine effectivement mënoon lañ garder place bi ne fii dañ ko prévoir pour def arène waaye bu jamono jotee vraiment fekk suñu priorité euh, moom la mhm. ñu tabax fa arène bi waa Pikine li ñu gënoon soxla actuellement mooy lan moo amoon ay commissariat de police am ay brigade de police ñu jox jumtukaay alkaati mu ñu mën a assurer sécurité. Mm-hmm. arène baa ngi ne la hôpital Dalal Jàmm oh, ñu oh, def Dalal Jàmm sa la arène baa ngi ne la ñaata parce que un mois euh, day toog ñetti weer ñetti weer du am combat et cetera donc c' est pas une priorité terre bi également du benn priorité ñu ngi def terre fi ay ñaata milliards la kenn xamul ñaata milliards. Mm-hmm. bu commencé léegi ñaata nit a ciy dugg pris bi nga xam ne dinañ wax rek ñun ñu fay est ce que baadoolo yooyu ci laa bokk sax est ce que ko mën a fay aller retour trois mille francs et cetera pas possible donc dañoo jël xaalis bi def ko ay dépense bu puukare li tubaab di wax éléphant blanc moom lañ def. dañoo yàqati xaalis bi dañoo yàqati xaalis bi xaalis boobu ñu def ci bu ñu ko jëloon ñu réhabilité oto yi n' si Sénégal bi yëpp. ah oto dem ba Tambacounda ba dem ba Ziguinchor moo ëpp njëriñ foofu bu boobaa dëkk yi dañuy dundaat dañuy naataat et cetera ba léegi kañ la ñu wax ne terre bi day daw. daf fii encore peut-être fii ak six mois wala un an encore fii lay toog du daw day pënd rek. léegi euh, fan yi jàll tamit euh, dégg naa ñu ne euh, yàggatul dara danañu teg première pierre benn stade olympique boo xamante ni jege na presque deux cent milliards ci Diamniadio. waaw man pour moi du priorité quoi waaw ñoom daal mun nañu investi ci loo xam ne daal mbirum pôle la daal waaye Sénégal am na yeneen priorité lu dul loolu. Euh, yokku njëg yi euh, mais askan bi tamit léeg-léeg dañuy gis nañ njëg yi day yokku ndax lu jëm ci euh, diwlin gi gis nañ ne butéelu diwlin bi nga xamante ni tey vingt litres la doon jar. Hmm. vingt litres la doon def vingt litres la doon def hmm. doon jar ay quatorze mille quatorze mille cinq cent léegi dem na ba ci ay ay vingt mille francs maanaam njëg yi nga xam day yokku te gouvernement bi du ci faral di ex du ci faral di expliquer beneen bi tamit askan bi ñoo ngi am ay manifestation comme ku ñu si mel ni collectif ñoo lànk ñoo bañ ñooñu day mel ni état bi non seulement dégluwut dégluwut. peuple am askan bi beneen bi ay njëg day yokk sans explication loolu laa wax ne est-ce que du liy raam sa ñag ba la jëm te bu fa amee kër du baax du yegg foo xamante ni daal état bi dina ko bëgg lijjanti mu të ko fu askan bi toll ci naqar ak si loo xamante ni tey bëgg nañ ku leen ci indi leeral te te joxuñu leen ay ay ay explication voilà mais c'est ça c'est que boo yore nguur euh, am na loo xam ne xëy na mënut a ñàkk aussi c'est que il faut pas être euh, naïf waaye lépp loo xam ne da nga ko war a def aussi mu si askan bi da nga koy expliquer ba mu leer. amuloo ci war a nëbbu daal lu mu métti métti wax leen dëgg parce que ñoom aussi du ñu ay dof. boo leen waxee loo xam ne yenu na maana dinañ nangu ni lii yenu na maana parce que munoo ne damay yokk ay njëg munoo ne damay yokk ak tax ay taxe extra ne na ñi ñi serré seen ceinture te yow sa wàllu bopp vraiment nga nekk di di di gundandaat parce que nañ ma baal mais président Macky Sall fi mu ne fi moom day nguuru day nguuru xam nga tout récemment rek wax nañu ñaata voyage lay def Mhm. man heureusement sax bi ma liiree si journal bi na ma ne ah donc li ma seetlu am na ñoo xam ne seetlu nañ ko ah doo toog ñaari semaine yoo xam ne vraiment doo xam sax lu muy uti bitim réew ça c'est pas normal am na voyage yoo xam ne bu ko économiser avion parce que dafa cher. ak train de vie de l'état waaw non avion bi dafa cher tukki bi li ngay fay si kérosène et ak aéroport yi boo demee bu ato kii avion bi taxawee li muy fay si taxe et yooyu mais bu ko bu bu bu bu ko économiser woon rek mais dina mën a jox force de sécurité et de défense yi essence bu doy boo xam ne seen opération yi dinañ ko faral di def ne serait-ce que fois par semaine. waaw est-ce que am nañ état boo xam ne day wax dëgg askanam. ah bon man de moom laa mos a jàpp ni bi du wax dëgg. da ngaa jàpp ne du ñu wax dëgg. du ñu wax dëgg maka j'ai pris mes responsabilités article yi moom mos a jot dama ne le président de la république a une parole instable parce que dafa wax yoo xam ne tebbeeku na te mun naa la jox exemple. Mm-hmm. bëri bëri. jërëjëf euh, mbokk yéen a ngi déglu euh, rajo Réwmi FM 97.5 seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck tey nag ñu daal di dalal euh, commissaire Boubacar Sadio commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle à la retraite moom la ñu invité tey ngir waxtaan ak moom mais courant bi yokku na. tey ministre bi Makhtar Cissé. moom nee na càmbar na ko biir ak bitti. fii ak ñaari at moom bu Sénégalais yi buñ sonal seen bopp courant bi mënut wàññeeku. waaw mais c'est à mbirum courant bi sax du ma si sori parce que euh, ñi ñi wax nañu ñi ñaa ngi ñaxtu mais en fait li ci gën a ñaaw mooy euh, ay weer ci gannaaw rek ñoom nee nañu am nañu courant bu doy weer ci gannaaw rek nee nañu courant bi deux mille vingt bi dinañ ko wàññi ci weer ci gannaaw nee nañu bëri nañu courant ba nga xam ne sax ñoom ñu ngi jaay Mauritanie te sax d' après information yi ma jot sax Mauritanie sax moo ñu ngi jënd euh, courant bi Mauritanie donc nga wax loolu matul sax ñaari weer ñetti weer nga ne da nga yokk courant bi donc am na foo xam ne kenn waxu fa dëgg donc c' est à dire que gouvernement ak population bi vraiment il faut que euh, ñu seddaal lu ñuy rétablir confiance bi kilifa bu waxee vraiment population bi waruñu di laam-laamee effectivement est wax na dëgg wala waxul dëgg mais malheureusement nag de gouvernement boo xam ne nag ñu wax dëgg. d'accord mais euh, ñu bari dañoo jàpp ne euh, président bi du déglu aw askanam maanaam askan bi bu ñu euh, déglu askan du caagi ne li ñuy wax rek. kàddu yi ñuy wax ngay déglu mais seeni jëf ak seen i démarche ak noppi gi ñuy noppi askan bi noppi gi ñu noppi léeg-léeg manifestation yi askan bu bëri génn est-ce que loolu ñu ñu jiite ñoom ñoo ngi koy jàngat ndax gis nañ ne euh, du ñu am benn leçon bu ñu siy jàngatee te ndax bi ñu defee manifestation gis nañ dañoo xëyaat rek euh, njëg yi gën di yokk mel ni daal li xew ci réew mi ak askan bi nga xamante ni ñoo ngi wax ne dëkk bi dafa metti dundin wi dafa metti frais ñeentewul nguur gi waaw waaw que bon xëy na taxuñu ko jox solo boobu waaye nag euh, mbettel gi souvent foofu lay amee quoi. mbettel ma naa am waaw mbettel mun naa parce que da ngay yaakaar ni nit ki. Mhm. xëy na merul wala mu ngi lay nangul wala dafa ñàkk pexe. Mhm. mais peut-être xëy na rek dafa am loo xam ne mu ngi koy togg. mu ngi koy togg mu ngi koy togg waaw mais bés bu ñoree rek bon vraiment dina la bett quoi ba dootoo xamante sax looy def quoi bon mbir mi nag. Euh, mhm. comme je dis waa nguur gi danoo arrogant danoo arrogant c'est-à-dire que dana xaw a dem daal ba ba beew dañoo beew waaw dana xaw a beew daal waaw yëg seen bopp daal ko maanaam mooy fuuy daal waaw mooy fuuy daal te dañu yaakaar sànq nguur gi xëy na eh, waaw du jeex c'est-à-dire ni ko tubaab di waxee eh, dafa mel ni butin la c'est-à-dire que mm-hmm. dañuy jàpp ni ñoom ñoo ko xeex ba mm-hmm. am ko waaw mm-hmm. gannaaw xeex nañu ba am ko fi mu ne fi amul keneen koo xam ne war nañ ko ci xajal quoi ah. jërëjëf euh, euh, commissaire jëf euh, commissaire euh, Boubacar euh, moom la ñu invité tey ci réew Rewmi FM ñuy waxtaane tey li nga xamante ni nag moo jëm ci actualité ak lépp loo xamante ni rek aju na si moom la ñuy waxtaanee tey kon commissaire ñu wax tamit ci li nga xamante ni tey moo jëm ci wàllum drogue bi nga xamante ni gis nañ ne bëri na luy dugg ci réew mi lan nga xalaat ne moom moo ko waral ak solution bi. ah li mu li ko waral simplement parce que euh, drogue bi disons euh, activité lucrative la. maanaam <laughs> day day génn xaalis bu bëri day jur xaalis bu bëri. mais dañoo gis ne drogue bi day dugg lu bëree. bëri bëri day dugg lu bëri euh, Sénégal daanaka nekk na plaque tournante maanaam drogue bi daf fiy ñëw. Mhm. ñu ko fiy jaay. Mhm. ñu ko fiy consommer. Mhm. mu fiy romb aussi di dem si beneen dëkk. waaw maanaam kon Sénégal euh, est-ce que nekkul réew moo xam ne. Mm-hmm. réew mu ak nooy neex la goo xam ne pour jaarale fi drogue yóbbu ko fenn dafa yomb. Euh, wala noo ko waxee noonu yow ma ko waxee noonu. Mm-hmm. mais day loo xam ne xam euh, ñi ñu constaté nañ ko quoi. muy drogue dure bi surtout cocaïne ak yooyu <clears throat> mais am na yeneen façon drogue aussi muy yàmbaa ji aussi parce que drogue dure bi. ay ay borom ay kilifa ñoo koy ñoo koy doxal ñoo koy drogue dure bi drogue dure bi ay kilifa ay kilifa ñoo koy dugal fii ñoom ñoo koy consommer ñoom ñooy dem seen i appartement ànd foofu ay eh, di fa def lu bon daal ah di fa naan seen i. ay kilifa yan xeetu kilifa ay kilifa bon fu mën a yem daal. <laughs> kilifa maanaam kilifa maanaam. mooy kilifa ñoo xam ne ils ont des responsabilités. des responsabilités waaw des responsabilités mhm. ñoo xam ne borom xaalis la mhm. naa nekk ministre. mën naa nekk ministre mën naa nekk député. mën naa nekk député mën naa nekk homme d'affaires mën naa nekk kilifa dina absolument kilifa ñooñu daal ñooy ñooy dugal. drogue dure voilà parce loo xam ne du mbirum du mbirum weccat mais li nga wax ni Cissé Lo waxoon na lu mel ni waaw bon Cissé Lo wax na bon peut-être que moom la aussi xëy na moo xam. expérience léegi foo teg li nga wax. fi ma tax dama ko teg rek parce que commissaire de police la. Hmm. <laughs> waaw. léegi nan la ñuy def lu tax nga ne du weccat drogue du drogue bi fi. du wecc c'est-à-dire que ay millions la. bokkul ak nag yamba yi nga xam ne ñu ngi koy jaay si koñ bi mais yamba sa sax ñu jaay si koñ bi c'est aussi dangereux aussi. parce que ay xale yu ndaw ñoo koy def amul koñ boo xam te di doo dem Dakar gis fa ay xale di di di fa jaay yamba ay corne yamba et cetera corne yamba yooyu la xale yi di jaay di di di di di di reyante seen biir di jamante paak et cetera nga xam ne léegi day day tax insécurité bi également gën a yokku parce que loolu gën a yokku insécurité bi. léegi drogue bi. Hmm. Euh, jàpp nga ne kilifa ay sénégalais ñoo ko fi dugal kon. ay sénégalais ak ay étranger dañ si lëkkaloo. waaw dañ si lëkkaloo réseau lay doon. mais lu yëfu xale daal. non du yëfu xale yu ndaw déedéet xale yi xale yu ndaw ñu ngi ci ñoom ñu ngi ci yàmbaay mais drogue dure bi moom ay kilifa la. ay kilifa ñoo koy ay ay la. ay kilifa ñoo koy dugal ci réew mi ay kilifa ñoo koy tux. ñoo koy tux. Euh, est-ce que euh, yow sa yow sa bopp en tant que xeex xeex drogue boobu kon ndax yomb na. Ah, yombul c'est-à-dire jëm noonu xeex lu bon moo ci boppam moo yombul waaye nag état bi ñu ngi ciy góorgóorlu quand même force de l'ordre yi gendarme ak police ñu ngi si def seen kamtalaay kattan li ci am léegi nag mooy nañu yokk seen doole. Hmm. nañu yokk seen doole c'est-à-dire que service bi nga xam ne surtout fii si Sénégal mooy toppatoo loolu muy service bi ñuy wax OCRTIS vraiment nañ ko yokkal dooleem ak jumtukaayam nañ ko jox nit ñu doy nañ ko jox nit ñu xarañ. et puis vraiment nañ ko jox équipement boo xam ne vraiment parce que ñoom seen responsabilité responsabilité nationale la nañ jox loo xam ne vraiment dina ci mën a taxaw ay ñi xam ne sawar nañu bëgg nañ liggéey am nañu compétence boobu mais non seulement loolu également nañ leen motiver parce que koo xam ne mu ngi liggéey ci lu mel noonu vraiment aussi war nga ko def ci yenn conditions yi nga xam ne xëy na vraiment du mën a dugg ci yenn travers yi d'accord mais euh, mmh. commissaire mm. Euh, bi ngay nekk en activité booba ak léegi nii lan nga nemmeeku ne drogue bi dafa gën di dugg ci réew mi wala wàññeeku na non non mu ngi gën a dugg si réew mi c' est avec l' évolution de la société. drogue baa ngi gën di dugg mu ngi gën di dugg c' vraiment aussi la consommation du du du du Sénégal rek réew mi ñëpp la quoi c' est une dynamique mais euh, xam nga ñoo ngi jàpp euh, drogue. Mm. mais est ce que li ñuy jàpp ci drogue. Mm. parfois buñ ko jàppee nag Sénégal dañuy jàpp drogue euh, mel ni lu koy bàkkoo. est ce mm. que li dugg ëpput. liñ jàpp bon c'est-à-dire ko mënoo ci xam dara te aussi dara permettre loo nga wax ni. mais jàppoo am na luy raw. non am na luy raw. ça c'est ne tamit li ñuy jàpp li raw moo ko ëpp. déedéet kooku moom jàpp ko parce que aw ma dara loo xam ne mun na ko tax mun na tax ma wax ko. Hmm. mais ce qui est sûr am na loo xam ne mu ngi raw. parce que aussi ñi ñi ay doomu aadama la ñu la sécurité disons à cent pour cent la protection à cent pour cent mënul am ah xam nga drogue ñoom dañoo am seen i technique hmm. ah léegi-léegi sax nga gis ñu jàpp drogue boo xam ne kenn du xam ko ko moom Mm-hmm. waaw parce que kooku euh, technique gu ñi di trafiquer drogue la quoi c'est loo xam ne dañ koy def seet est-ce que lii nooy na est-ce que lii effectivement buñ ci wéyee drogue di mën a dina mën a jàll dañuy capacité effectivement de vigilance wu force de l'ordre yi quoi mm-hmm. mais am na luy raw loo xam ne kooku kenn mënu ko weddi est-ce que ëpp na léegi li ñuy jàpp wala tolloo nañu et loolu na aussi kenn amul kenn amul benn natt boobu natt boobu déedéet mm. drogue bu bari buy dugg ci réew lan moo lan mooy jeexital yi lan la mën yàq ci askan bi wala lan la man yàq ci économie réew mi wala mënu cee yàq dara si si mun na si yàq parce que économie souterraine la ma dina tax bon day tax corruption bi euh, euh, gën a bëri euh, am na dëkk boo xam ne du ma ko tudd suñu wett la suñu wett la nekk mais dëkk bu demee ba nga xam ne drogue bi am na fa doole dañ ko wax un état narcotrafiquant nga xam ne ba nga xam ni day dem ba ci dugg ci institution yi ba ci police ba ba ci gendarmerie ba ba ci ministère yi ak yooyu ba nga xam ne finalement ñi nga xam ne ñooy def activité drogue bi ñooy yore ñooy ŋànk réew mi. bu hmm. boobaa bu booboo si vraiment dafay metti réew mi dootul réew mi dootul jàggati. d' accord hmm. euh, ñu jeexalee ponk bu baag benn laaj euh, tënk ko mooy euh, réew moo xamante ni drogue moo fi dugg te ay kilifa nekk ci ci réew mi ndax loolu dina yomb saafara. non non euh, du yomb saafara mais mën nañ ko saafara quand même. comment waaw mën nañ ko saafara comme ni ma ko waxee déjà dans un premier temps nañu jox ñi ñi jontuwaay bu doy sëkk. waaw mais yow comme li nga wax ni sànq mm. commissaire bu dee même jumtukaay. xam nga tey par exemple tey euh, policier bi wala gendarme bi mën naa jàpp drogue mais bu dee tey par exemple tey drogue bi mu jàpp. c'est-à-dire àggaluma la. waaw àggaluma c'est-à-dire que non seulement jumtukaay pour police ak gendarme yoon aussi nañ ko doxal. nañ ko doxal cest à na am chaîne disons. Euh, nu ma ko mën a euh, waxee sax une solidarité de la chaîne pénale c'est-à-dire policier bi ba jàpp ba ci procureur bi ba ci juge bi nga xam ni mu ngi tëj vraiment euh, nañu nañu bokk ci liggéey bi na nañu bokk ànd liggéey ba nga xam ni vraiment ni ko tubaab yi di waxee il faut être dur avec le crime il faut être dur avec les causes du crime c'est-à-dire que bu ñu jàpp alkaat yi def seen kemtulaay kattan pour jàpp ko yóbbu ko vraiment ngàll bu demee tribunal ñu bañ ko bàyyi. waxee sànq mm-hmm. noonu. xam nga tey yow soo waxee ne policier bi ko jàpp wala gendarme bi ko jàpp war dem ba ci euh, ba ci procureur te procureur tey ministre la justice moom moo koy sant jéggi procureur dem naa ba si juge waaw dem nga ba si juge mm-hmm. ñëw bu ñëwee ba si procureur mm-hmm. doo ko ñëw ci juge mm-hmm. ah, tey ministre de la justice mën na ko jox ay ay ordre mu doog a dem ci at est-ce que ñoo ñëpp chaîne boobu loolu lépp nga lim ak ñun sunu Sénégal gi ni mu tëddee est-ce que ñooñu am nañ indépendance boobu ah non cest dire que day xaw a day day xaw a day xaw a doy waar man si wàllu drogue dama ne li jëmee li dale si alkaati bi dem si procureur dem ba si juge bi nañu déggoo ñu am solidarité boo xam ne képp koo xam ne vraiment trafiquant manifeste nga trafiquant la boo xam ne vraiment euh, jàpp nañ ne ci loolu li nga xam ne moom la yoon prévoir pour ñu daan la ñu daan la ko maintenant bokkul ak nag question bi ngay posé mooy indépendance justice mhm. kooku beneen problème la waaw kooku moom vraiment aussi am naa ci xel ñaar comme sénégalais yu bëri parce que damay gis ni eh, situation bi yoon day gaaw lool situation bi yoon de ci yéex lool boo gisee situation bi gaaw ci lii souvent damay constater ni ñoo xam ne ànduñu nguur bi la situation boo xam ne daf ci yéex lool damay constater ni ñoo xam ne dana ànd ak nguur bi. kon ba kon ban misaal. Hmm? kon ban mis kon ban misaal. ah kon ban misaal mun naa joxe beneen misaal boo xam ne sa sama xaritu sama xarit euh, Khalifa Sall. mbiram dafa gaaw lool lool lool lool lool. Khalifa dafa gaaw lool lool lool te gis nañ fi yeneen yoo xam ne yoo xam ne yoo xam ne ba léegi ñaari at ñett at a ngi nii ba léegi dara sotteegul. d'accord waaw. jërëjëf euh, commissaire Boubacar euh, Sadio mbokk yéen a ngi déglu rajo Rewmi FM seen émission pencu mi léegi nag ñoo ngi doog dugg nag mm-hmm. euh, ci émission bi dëgg nag mm-hmm. ndax dañu gis nañ ne réew mi ñàkkuk kaaraange gi léegi li ñu bëgg xam comme mm-hmm. sànq bi ñuy waxtaan mën a yow avant ñu dugg si studio bi maanaam sécurité. Hmm. jëmmi baatub sécurité. Hmm. lan mooy baatub sécurité boo ñu ko doon expliquer tey ci wolof. voilà euh, maa ngi lay remercier ci question boobu euh, pour di la wax ne souvent ñun ñi nga xam ne xëy na dañuy wax ni borom xam-xam lañu yàlla xam ndax borom xam la wala duñu borom xam-xam euh, il faut bu ñuy wax léegi ak citoyen yi aussi ñu leen di expliqué yeneen notion yi ñu comprendre ko parce que souvent citoyen bi boo buggee mu jàppale la ci li ngay liggéey na ko xam. tubaab nee na il faut d'abord la connaissance mooy xam-xam bi. Mhm. connaissance bi bu amee léegi day tax nit ki am prise de conscience maanaam euh, day natt yëf yi xam lu mu tekki boo amee prise de conscience boobu léegi dafay am engagement day sawar dugg ci ci ci mbir mi bu boobaa nag ku sawar dugg si mbir de lu ñu la jëfloo rek di ko def. Mhm. donc souvent da ngay dégg alkaati yi dina population yi nañ ñu jàppale nañ ñu jàppale waaye population balaa mu lay jàppale na xam li ngay liggéey. Mhm. waaw bon li nga wax nag si baatu sécurité souvent ci ñaari anam ba si ñetti anam. Mhm. lañ koy firi benn bi sécurité mooy euh, jàmm am na amul sàcc exemple koñ bi rek laa jël de amul mhm. sàcc amul fekk ñu kër këram di ko bundu xatal et cetera ñi ñaa ngi ndox si mbedd bi nu la neexee loolu mooy sécurité tubaab nee na ko état tranquille qui résulte d'une absence réelle. d'accord insécurité insécurité nag mooy. Euh, loolu safaan ba la. maanaam euh, ñii ñi ñu ngi leen di agressé ñu ngi leen fekk seen kër amatuñu jàmm mënatuñu dox si mbedd bi et cetera mais am na beneen boo xam ne su moom la ñuy wax léegi sentiment de sécurité mooy vraiment nga nekk si koñ nga nekk si dëkk nga yëg ni fi mu toll fi yow ñu ngi lay aar. Mm-hmm. yaa ngi gis police yi dem ak ñëw et cetera. maanaam boo nelawee boo nelaw booy xandoor boo mais loolu bu ñàkkee léegi nag moom mooy indi sentiment de sécurité d'insécurité wala fekk ni sécurité bi bëri na. journaux yi di si wax télé bi di si wax mun na jur loolu si doomu aadama yi. Ah, Sénégal fi mu nii santiment d' insécurité la nekk wala sentiment de sécurité. non sentiment en toute objectivité population bi ñu ngi si sentiment d' d' insécurité d' insécurité maanaam bu ñu nelawee du nelaw ba yàndoo. du ñu voilà ci li ñuy dégg ci li ñuy gis. d' accord dañuy wax ñuy wax euh, sécurité intérieure ak sécurité euh, sécurité extérieure. Mhm. ñaar yooyu. lan mooy différence bi. doo ñu ko expliquer différence bi amul solo parce que ñi ñëpp bu ñu ko la ñaatale woon xëy na du ñu wax militaire yi nañu ñëw régler affaire sécurité publique sécurité intérieure mooy jumtukaay yi nga xam ne yëpp état bi da koy teg pour léegi aar nit ñi si seen jëmm aar ñi ñi si seen alal aar nit ñi aar sénégalais yi ci kuréel yi nga xam ne ñoom ñoo ko teg fii muy présidence assemblée nationale et cetera nest pas sécurité extérieure nag mooy li nga xam ne xëy na eh, ci bitim réew la war a mën a jóge ñoo song si réew mi donc sécurité intérieure police ak gendarmerie ñoo ko yor. Hmm. sécurité extérieure nag militaire ñoo ko yor. d' accord léegi euh, Mame Gor Diazaka mi doon wax ne euh, armée bi militaire dañu nekk ci camp yi rek di nelaw di lekk ceeb yow lan moo ci saxlaat ci loolu. Euh, bu ma tudd tuur kooku sax parce que hmm. vraiment naw ko trop mais wax ci wax ju ñaaw la. li mu wax li mu dafa ñaaw dafa ñaaw trop. c' que est ce que gis na militaire yi nga xam ni dañoo pat. est-ce que gis na militaires yi nga xam ni dañoo gumba mhm. est-ce que gis na militaires yoo xam ne seen loxo dafa dagg mhm. wala seen tànk dafa dagg wala seen ñaari tànk dagg et cetera mhm. est-ce que gis na leen ñooñu dafa bëgg a wax ni xëy na seen lal la ñu tëddoon rek loolu ñoo fekk leen foofu ñooñu dafa am feneen fu ñu demoon dañ demoon ci toolu xare loolu fekk leen foofu léegi nag nga war a toog nag léegi nag ne militaires yi dañuy lekk ceeb rek c'est que boo xamoon luy sécurité intérieure ak extérieure dina xam ne militaires yi loolu seen liggéey parce que loolu formation la policier gendarmerie formation bi ñu am militaire amuñu ko militaire formation bi ñu am gendarmerie amuñu ko je crois que loolu daal baat du ñaaw la yoo xam ne vraiment ñëpp a ko war a naqarloo ni ma ko naqarloo noonu la ko militaire yi war a naqarloo te vraiment je crois que je peux jàpp jàpp naa ni daal euh, baat bu ñaaw la daal. est-ce que est-ce que toll nañ fu ñu war a defee appel militaire yi ci réew mi. Mm. non non non tollaguñu foofu c'est vrai que nañoo xam ne aussi que police gendarmerie ñu ngi liggéey si français xam nga nu ma ko mën a waxee disons que euh, kenn débordé wu leen. Euh, kenn dépassé wuñu mais c'est-à-dire que nag euh, dañ leen di xiirtal nag waaw bande insécurité bi daf leen a xiirtal waaye nag du loo xam ne dafa leen a jaaxal trop loolu aussi il faut ñu wax ko aussi. parce que mais mais mais li maam góor wax damaa gis euh, ay ay militaires ay anciens militaires yu bari yëkkati seen kàddu est-ce que wax ji toll na dayo boobu nag. toll na dayo googu parce que dafa xamul liggéey bi ñi ñi di liggéey ko mais damaa dégg euh, lieutenant-colonel Adama Diop mi jiite woon DIRPA jamono ne procureur waroon na ko woolu est-ce que toll na foofu. toll na foofu ah bon waaw dana nekk ci euh, danoo nekk ci réewu jàmm rek quoi. mais waaye mais am na koo xam ne am na militaire boo xam ne foofu mu nekk noonu yëf yi métti na ko bu jàkkaarloo woon xëy na maam. Euh, euh, maam Ngor boobu xëy na leneen la ñuy wax ci quoi. kon jàpp nga ne yow procureur war na ko woolu bon procureur bon. sax xalaat yow. sama xalaat. waaw bon peut-être xëy na jaru ko sax ko mooy xëy na xëy na jaru ko d' accord léegi euh, ñu wax sinon da nga leen di jox importance bu ñu amul quoi d' accord léegi euh, mbirum euh, ñàkku kaaraange gi mm-hmm. gis nañ ne teg gendarmerie ak gendarmerie ak police mm-hmm. fi nii ñoo ngi def ay opération ministre de l' ma ngi def ay opération mm-hmm. njiitul gendarmerie tamit di Jean Baptiste Tine ma ngi def ay opération opération yooyu yow noo ko gisee opération c'est-à-dire que mbirumu sécurité aussi il faut que ñu situer responsabilité yi parce que dafa ñetti niveau responsabilité benn bi responsabilité politique loolu responsabilité président de la république la moom lañ jox réew mi ne ko naatalal réew mi ñu am xaalis bu bëri ñoom lañ jox moom lañ jox responsabilité aar ñu n'est-ce pas donc am na si responsabilité te responsabilité bi ma gis si moom mooy gis-gisam dafa xaw a sooxe. kan Macky Sall waaw Macky Sall si boppam mun naa joxe exemple fekk ni xëy na. waaw waxal voilà benn bi. Mhm. Euh, bi mu doog a falu dafa ne léegi dafa tëral gouvernance sécurité de proximité. bokk naa ci ñi ñi ko liggéey gouvernance boobu ci lan la waroon sukkandiku ci prévention mooy faggu balaa euh, balaa dee di am ensuite ak proximité mooy population bi ak euh, force de l'ordre ñu mun di lëkku lëkkaloo di mun a waxtaan donc mais biñ ne bi ci biir affaire boobu sooxee parce que ñaar côté yooyu yëpp doxul te après mun naa la lu tax doxul mhm. euh, ñu dem ba ci biir euh, amoon na at boo xam ne ñeenti at ci gannaaw lii amoon na insécurité bi et cetera ñuy coow mu ne léegi si benn conseil de ministres dinaa voté benn loi boo xam ne loi d'orientation sur la sécurité intérieure dinaa ko yóbbu assemblée rapidement ñu voté ko boobu ba léegi ba sànq bi may wax ne dara sotteegul ñu dem ba ci biir aussi affaire Binta Camara bi aussi. Mhm. n'est-ce pas amoon na fi ba mu ne léegi dafay organiser conseil présidentiel. Mhm. sànq ba léegi ni dara sotteegul mois de mai la ñu déclaré ne dañuy organiser conseil présidentiel ñu jëmale ko mois d'août Sénégal yi sax jaaxale woon ñu ne mais ñun fi mu defe dañoo tiit ngi deret yaa ngi tuuru lu tax ñuy xaar ba mois d'août léegi ne ne dañuy toppatoo sunu sunu sunu sunu kaaraange n'est-ce pas donc moo tax ma ne léegi gis-gis bi daal des na xëy na war na ko gën a mën a jubanti n'est-ce pas donc loolu mooy responsable mais li wax ni gis bi rafet na ñàkk koo jëfe mooy problème wax naa noonu gis-gis bi sax euh, sooxee na tuuti soo xëy na tuuti donc loolu mooy responsabilité politique. Euh, responsabilité technique bi nag mooy si wàllu police mbir am na léegi policiers yi euh, ban xalaat la ñu am pour régler ko yan jumtukaay yi nga xam ne xëy na moom la leen état bi jox la ñu mën a jukkandu euh, jëfandiku pour def ko mooy mode opératoire ak façon bu ñu ko war a defee ak la logique d' intervention ak yu bëree bëree bëree bëri actuellement ñu ngi góorgóorlu ñu ngi def mais des na. ci wàllu lan mooy logique comme li nga wax. bon logique d' intervention comme ni ma ko waxee léegi mbir mi am na léegi. lan la xam nga euh, nu mu tudd ci euh, ñu ngi def affaire sécurisation. si mhm. logique d' intervention la bokk si si riposte la bokk si parade la bokk mais dama leen loolu fi mu toll fi warul nekk loo xam ne rek dafay ponctuel rek day loo xam ne xëy na dañ ko a di def de manière systématique n' est ce pas donc seen jumtuwaay aussi état bi moo leen ko jox mais jumtuwaay mi ma ni ma koy waxee ni dama ne doyul des na encore pour ñu mën a def maintenant ay patrouille ñu ngi koy def gaaw si banlieue bi waaye des na dañ ko war a def fu nekk ñu ngi ko defee plateau lañ ko war a def ci banlieue ba ba nga xam ne sénégalais bi dafay sentir ni effectivement police yow na police jël na mbir mi en charge et cetera n'est-ce pas ak yeneen ni yeneen yoo xam ne xëy na mënumaa dugg si am na nag responsabilité sociétale boo xam ne société bi la ñu société bi bindu am na loo xam ne xëy na aada la woon doon na mën a tax xëy na ñuy surveiller xale yi loolu amatul et cetera euh, ñii ñi léegi fi ñuy liggéeyee par rapport a fi ñuy fu ñu dëkk par rapport à fi ñuy féexlu soronte woon nañu ba nga xam ne li tubaab di wax euh, nu mutu tuddati capacité de surveillance amatul nest pas capacité boo xam ne voisinage bi moo doon tax nga def ko yu bëree bëri vraiment loolu moo tax ko mais opération yi nii est-ce que solution la solution so solution mais doyul doy la parce que solution euh, opération disons que euh, c' dans le cadre de la prévention. waaw baax na de loo xam ne mais c'est-à-dire que dama ne fekk da nga koy def tey nga war a toog weer pour defaat ko dootul opération de sécurisation mais opération de tranquillisation la mbir dafa am ñi jaaxle ñi ñi euh, xamatuñu lu ñuy def nga def lii pour dalal seen xel déedéet dafa war a nekk chaque semaine ñu def ko mais ministre bi lii ma def nii du xumbal oh mun mun ma wax ni xumbal la de kooku boobu vraiment. mun naa wax xumbal la waaw sañ ma ko mais je crois que jarul aussi yenn yenn tapage yi yenn communication yi waaw waaw nañ def seen liggéey euh, de manière professionnelle euh, bañ ci bëri coow sax quoi jaru ko. d' accord mais euh, est ce que Samba Boy bandi yeeg ñooñu est ce que tamit ñoom tim amuñu stratégie comme ni police ak gendarmerie amee ay stratégie. waaw dégg damay faral di fan yëpp maa ngi koy wax dama ne xam nga bandi dan leen a xaw a ërtal. fii si dakaar donc lu ñu def moo tax ñu ngi dem ci àll ba parce que xëy na ni sécurité bi amee fii maillage bi amee fi amee fa noonu ci àll ba et ensuite euh, ni ma ko waxee sànq li xaw a am li am Dakar léegi mu ngi dem ci àll ba te bandi aussi dañoo am stratégie cest à que boo defee yow say pexe ne naa leen di xeexe si lii li tubaab di wax stratégie de déplacement ñoom dañ koy am waaw ñetti façon stratégie de déplacement la ñu am am na stratégie de déplacement géographique maanaam dañuy jóge Dakar mhm. wala dañuy jóge Plateau ñoo Géejawaay mhm. wala ñu jóge Dakar dem léegi ci àll ba mhm. wala ñu jóge ci dëkku taax yi dugg léegi ci dëkku dëkku àll bi boobu mooy stratégie de déplacement géographique am na stratégie de déplacement temporel lu ñu waroon lu ñu doon def bëccëg bi ñu bàyyi ne nañ ko def ngoon wala ñu def ko ngoon ne léegi ah police daal ak gendarmerie seetlu lañ leen que guddi di luñ léegi léegi nañ ko def guddi et loolu mooy stratégie de déplacement temporel am na stratégie de déplacement tactique tactique mooy nu ñu koy defee xëy na am na jamono yoo xam ne dañ doon dox di ko def léegi ne ne ah nañ jël scooter wala dañ doon doon def kenn di ko def ñaar di ko def mais léegi ne ne nañu def groupe di ko def wala ñu ne léegi xaar jigéen yi léegi dañ doon jël seen chaîne yi di ko di ko di ko di ko di ko fipp ah di ko xëcc ah di ko nangu di ko arraché waaye ji gis nañ jigéen yi léegi aussi dañuy jël seen chaîne yi di ko dugal seen saak di sol pakuti dañuy bàyyi ba dem ci xew ba doog a sol nag seen bandi aussi xool nañ loolu dañuy am information léegi ne nañ leen bàyyi ak seen pakuti nga xaar lañ ba ñu dem léegi si xew ba ñu song leen foofu moo tax nga doon gis léegi xale yi di def groupe di ñoo song ay xew pour nangu saaku nit ñi loolu mooy stratégie de déplacement tactique am na nag stratégie de déplacement fonctionnel xëy na nit ñi si porte dañ doon tafu lu mu tudd ci porte-monnaie yi ak yooyu bàyyi nañu loolu léegi ne ñu ngi tafu portable yi wala léegi bàyyi nañu portable yi ñu ngi tafu leneen quoi donc ban bandi yi aussi dañoo am stratégie yooyu yëpp non non non dañuy ni leen alkaati yi toppee noonu la ñuy toppee aussi force de sécurité. d'accord mais yow euh, commissaire nga mm-hmm. euh, Boubacar Sadio. Mm-hmm. est que yow tamit lii nga wax ni comme par exemple stratégie yi nga wax ne Samba Boy bandi am nañ ko yéen tamit est-ce que amoon ngeen tamit ay plan yoo xamante ni tey ñoom euh, yéen lu ngeen teg ñoom bu ñu ko teggee ngeen mën a teg leneen. non non absolument ñu ngi ci moo tax souvent damay encourager police. vraiment ñuy def analyse prospective cest te xaw jiitu bandi yi si si seen jëfin ko hmm. donc. Euh, waaw mais hmm. pourtant man euh, commissaire man li ma gis nii tey. Hmm. par ma tey bu doon ab joŋante la. diggante gendarmerie euh, lëkkaloo ak police. ak samba boy yi damay wax ne bu doon ab joŋante la wala combat. samba boy yi ñoo ko gañeegoon ndax jàpp naa ne ñoom li ñuy def ba tey. ñoo ngi wéy di ko def. te dafay mel ni solution mënu ci am. man dafa mel ni man loolu laa loolu laa remarqué. waaw loolu nga remarqué. ka ne tey mm-hmm. banques yi ñoo ngi koy daaneel. Mm-hmm. Euh, euh, crédit mutuel yi ñoo ngi koy daaneel. boutique yi ñoo ngi koy daaneel 4-4 bi ñuy dégg naan day wër ci àll beeg yooyu ba léegi nii ma ngi am. Mm-hmm. te man loolu bi ma ko commencé dégg yàgg na. te ba léegi nii gis naa ne solution amu ci. waaw solution euh, sol solution ngi si c'est que il faut si ngeen di xool ñi nga xam ni Euh, ñu ngi def ñaawteef yooyu ak aussi taux d'élucidation bi nga xam ne ñi ñi policier aussi di jàpp souvent ñi ñi dañuy fàttali police ak gendarmerie di jàpp ah ñi nga xam ne ñu ngi rey ñi ñi euh, taux d'élucidation maanaam mu am crime ñu leeral ko mais vraiment wax dëgg yàlla côté boobu sunu police ak sunu gendarmerie am vraiment kooku il faut le féliciter pour ça évidemment li gën mooy mu bañ a am parce que liggéey police ak gendarmerie disons liggéey préventif la c'est-à-dire que nit ki euh, ñu rey fukki nit Euh, fukki nit yooyu ñi leen rey ñu jàpp leen lu baax la waaye li gënoon mooy fukki nit yooyu ñu bañ leen rey. Mhm. loolu mooy loolu mooy prévention mais police ak gendarmerie ñu ngi liggéey te vraiment aussi temps yi dañoo jël orientation maanaam xarala yu bees si aussi. Mhm. ñu ngi koy jëfandikoo bu baax a baax maanaam ay vidéo surveillance euh, gis nga sax boo seetoo fan yi bu ñu reyee nit dañuy gaaw jàpp ki ko def. Mhm. li ko indi mooy effectivement li ñuy wax police technique et scientifique mooy nga xam ni bu mbir amee rek da nga leen fay gis. n'est-ce pas ñu am mallette de constat boo xam ne mu ngi ci biir bon loolu si ñu ngi liggéey si li ñuy wax biométrie ci empreinte yi ak yu mel noonu loolu mooy permettre ñu gaaw a jàpp ñi ñu ngi ci liggéey ñu ngi liggéey liggéey bu baax a baax seulement nag am na loo xam ne aussi il faut que ñu rectifier ko. Mhm. parce que temps ñu ngi wax benn taux de criminalité si Sénégal. Mhm. wax 30 pour cent ne xaw ma euh, agence de sécurité de proximité moo ko def. Mhm. n'est-ce pas mais taux boobu vraiment taux bu erroné la. Ah vraiment non non ñu ngi gis Afrique du Sud Sénégal encore une fois délin délinquance bi am na insécurité bi am na mais comme ni ma ko waxee jéggiwul delloo parce que aussi euh, am na loo xam ne yàgg na am euh, rey nit yi et cetera man 85 laa nekk commissaire Guédiawaye bi ma jëlee service je crois que fukki fan après laa dem ma def benn constat ci benn tàngana benn waay bu ñu rendi 85 bi bi ma ñëwee dama laal bopp rek bopp bi bopp bi daanu mais xëy na boobu jamono yooyu amul woon Euh, médias yi médias et cetera aussi il faut faire la part des choses et ensuite aussi il faut faire le distinguo entre insécurité ak violence violence loo xam ne xëy na doom boo xam ne dafa jam papam ci biir këram lu ci alkaati mun hmm. lu ci alkaati mun donc il faut faire la part des choses c'est que violence souvent nag effectivement day am un effet sensationnel boo xam ne effectivement loolu de fay jur sentiment d' insécurité si nit ki. loolu ci biir société bi loolu ci biir société parce que dama ne société bi moom mooy insécurité kenn mënu la ne mun na ko dindi à cent pour cent. mais mais mais commissaire mhm. xam nga tey par exemple tey bu dee benn waaye dafa fekk ñaari xale tubaab mu rend leen. Mhm. wala ñaar ñu bokkoon euh, benn appartement xuloo ba kenn ki rey moroom ji mm-hmm. wala ñaar ñu doon babi kenn ki rey morom ji xam nga tamit tey mënoo jeu de babi bu nekk police tax wala mm-hmm. gendarme buntu boutique ba nekk mënoo mm-hmm. taxaw kër nekk mënoo fa loolu loolu daal du responsabilité euh, état kon non non du responsabilité loolu violence la ci société bi de violence la xam ne dafa jur lu ko indi nag ça aussi bëri na ay cause d' comme Binta Camara mi ngi doon wax sànq loolu lu mel noonu lan la ci euh, nguur man loolu nguur mënu si dara koo xam ne parce que d'abord dafa am relation de confiance boo xam ne dafa am sa diggante sa ki la ki nga dénk sa mu la koy garder kooku da nga mucc da munoo mucc ci ay pexe munoo mucc ci ay pexe bés bu décidé ne xëy na daf lay def li da la koy def mais bu boobaa police du fa nekk parce que police am na leneen loo xam ne vraiment loolu mooy liggéeyam que comme ni nga ko waxee léegi munul derrière chaque citoyen effectivement mu tekk mu nekk fa c'est pas possible donc il faut que ñu di euh, ràññaat la loo xam ne insécurité la parce que insécurité moom am mais aussi nañ ko différencier ak les violences domestiques yi nga xam ne vraiment ci kër yi lay xew wala ci ay endroits yoo xam ne vraiment la police n'est pas censée s'y retrouver parce que tout simplement c'est hors de leur zone de compétence et de leur champ d'intervention quoi comme ni ñu koy waxee. d'accord mais euh, commissaire dañuy faral di dégg tamit euh, waa police ak waa gendarmerie di wax askan bi di leen jox ay numéro vert na leen bu ngeen gisee euh, lu nga xamante ni seen xel ñor njort ngeen ne euh, kii Samba Boyel wala dara ngeen signalé ko loolu tamit est-ce que jàpp nga ne solution la. waaw waaw noonu ci la bokk si à aussi c'est solliciter la participation dañuy ñaan askan bi aussi mu bokk ci mais comme ni ma ko waxee askan bi aussi euh, policier ak gendarme yi ci ñoom la gën a yomb ñu dem ci askan bi parce que aussi dinañ jox naa numéro rek ça ne suffit pas ça ne suffit pas da ngay fexe ba créer loo xam ne vraiment di nga mën a toog ak askan bi ngeen di échanger loolu ci loi bi nga xam ne moom la ñu prévoir woon prévoir ñu ko maanaam li ñuy wax euh, contrat local sécurité maanaam préfet moo koy diriger. procureur dina fa nekk ak maire bi mais imam boobu dina fa nekk ki nga xam ne mu fekk jàngoo ngi foofu dina fa nekk association de jeunes yi dina fa nekk n'est-ce pas délégué de quartier yi dinañ fa nekk ba nga xam ne léegi chaque fois dañuy toog di réunir ne léegi gox bi géejawaay bii lii mooy problème insécurité parce que lii xew géejawaay du moo xew Grand Dakar li xew Grand Dakar du moo xew Médina gox bu nekk am na loo xam ne xëy ne moom mooy gêner population bi cadre d'un contrat ñu ne lii lañ def maire ne xëy na man mun naa léegi weer bu nekk di leen jox nangam si essance wala mun naa def mbedd yi ma defal leen ci làmp imaam imaam yi ne moom mun nañ fexe ñaari weer ñu nekk wala weer bu nekk ñu xutba si jumaa yi pour wax ñi ñi vraiment di leen dellu si seen extra nangam nangam loolu mooy contrat bi quoi mm-hmm. mais contrat boobu balaa ñu ko mm-hmm. il faut ñu def li ñuy wax diagnostic local de sécurité diagnostic bi mooy permettre effectivement comme ni ma ko waxee ñu xam lan mooy délinquance bi fii lan la est-ce que dugg ci car rapide di dikk fii fii la est-ce que di car jigéen ñi la suba teel bu ñuy bu ñuy bu ñuy xëy la et cetera. n'est-ce pas waaw waaw mais euh, commissaire ah, ak encore commissaire yow euh, comme yow euh, yow ancien euh, euh, commissaire de police nga mm -hmm. comme yéen ñi nga xamante ni tey ak lu man di xew mm am ngeen ci expérience mm-hmm. tey expérience bi ngeen ci am yéen ak expérience bi ngeen dund mm-hmm. mën naa am différence ak expérience bi nga xamante ni euh, gis nañu ay policiers di ko di ko dund. Hmm. mais vrai que am na ñu xarañteef. ma ngi mel ni nag ma lay misaal ci ñi nga xamante ni tey ay anciens journalistes lañ expérience bi ñu doon am. Hmm. ak expérience bi journalistes yi di am dafay am différence. Hmm. ñële ñooy ëpple fuuf expérience. même bu dee journalistes ñooy ëpp diplôme ñële ñoo leen ëpp expérience. mais yéen tey est-ce que tey jotutoon état bi anciens commissaires yi état bi woo leen di leen consulter di leen waxtaan ak yéen ay réunion ay forum lan mooy seen xalaat ci insécurité bi ndax loolu jàppoo ne waroon naa mën a am. ah loolu de moo moo doon lu gën mais dama yaakaar ne xëy na danoo soxlawul sunu sunu sunu expérience n'est-ce pas bon parce que am na loo xam ne du livre moo la koy joxo du li nga jàng école police. moo la koy déedéet loolu da ngay def dix ans quinze ans vingt ans ba trente ans ci service loolu moo la ko mën a may quoi bon maintenant laa nga sa expérience dem nga retraite toog jàpp sa njàmbur xëy na état bés bu la soxla woon. xëy na mu oo la mais xëy na bu la oow la ça veut la ñu am na yoo xam ne xëy na sawar nañu bon peut être xëy na état soxlawu ñu waaye maa ngi fii di ko baax askan bi xëy na askan bi mun ci am njëriñ et boo ah, jëlee par exemple je donne mais mais am na loo xamante ni tey doo ko wax rajo bi. yow am na loo xamante ni doo ko wax ci rajo bi. Hmm. Oh, mu oo que ma xëy xëy rek dem dem dem di ko set. boo jëlee par exemple sama am na expérience boo xam ne amul benn gendarme amul benn policier boo xam ne am na ko fi. parce que ci wàllu police de proximité laa wax dama jóge université bi ma jógee université euh, dama dama jàngale Fatick boobu dëkk président fa laa jàngale am na benn ministre boo xam ne sax sama élève la woon quoi bi ma jógee foofu ma def concours. ban ministre la. <laughs> déedéet Mbaye ban ministre loolu bon bon je ah. xam nga rek. ok nit ñi daan bon euh, ma jógee def concours dugg école police bi ma dugg école police mais ma def euh, li mu fa war a def. ay PJ rek laa yore woon section police judiciaire muy ndar ak euh, ak euh, sûreté urbaine ñu jóge foofu ma dem géejawaay jóge géejawaay dem Tiwaawan bi ma jóge Tiwaawan fa la ñu événement yi fekk yàlla def ma génn police bi ma génn police ma xalaataat bu baax li ma doon def police ak jamono yi ma seet li nga xam ne moom laa doon def ci lu baax ak loo xam ne loo xam ne xëy na dama koy defaat euh, bu ma delluwaat dama koy rectifier moo jóge foofu ñu xeex ba ñu am police municipale ñu ngi doog a doon am police municipale ma bokk ñi nga xam ne ñoo xalaat police municipale boobu bu ñu defee police municipale boobu ma dem nekk directeur police municipale bu bu Pikine jóge foofu nekk directeur police municipale bu bu bu Dakar jóge foofu def ñibbi si bi ma ñibbisi ma créé li ñuy wax volontaire de Dakar mooy xale ngeen gis place de mhm. ko créé laa bokk maa leen formé maa leen commandé ñaari at ba ñetti at ma delluwaat encore police bi nga xam ne fa laa jóge woon ma jóge foofu encore léegi ñu créé ASP yi ngay gis ni maa dama bokk si ñi bind ñi waaw ñi ciy bind ci ñi formé ak ñi nga xam ne man maa la njëkk a installé donc côté boobu am naa si expérience boo xam ne xëy na bu ma sañoon moom baaxee ko waxuma sa askan bi wala keneen koo xam ne naa ko baaxee daal askan bi waaw je crois loolu moom commissaire moo ëpp solo xam nga commissaire tey man ngaa wax ci rajo bi sa xalaat ak yu demee noonu mais mm-hmm. am na loo xamante ni ay stratégie la yoo xam ne mm-hmm. euh, yéen du ngeen ko wax ci kaw moo mm-hmm. xam gendarme ancien ki dem retraite du ko wax ci kaw ndax ay stratégie la yoo xamante ni bu ngeen ko waxee tey euh, bandi yi mën nañoo am ne nuñu nuñu nu ñu demee wala bu ngeen taxawee ne tey ministre bi na doxalee nangam kon bandi yi nga absolument ah, waaw mais loolu laa la wax ne moo tax ma ne la tey euh, ministre de l'intérieur ak président Macky Sall ki jiite réew mi. Mhm. ak euh, moo xam ministre des force armées. Mhm. ñi nga xamante ni tey ay anciens gendarmes lañ. ak ay mhm. anciens policiers. ñooñu def plus de trente ans vingt ans carrière wàcc si terrain bi avant euh, technologie yi de xew. ñooñu am nañ expérience boo xamante ni waroon nañ leen a boole. ci ci ci ci mbir yi. ka xale nag moom mooy nekk mooy am doole mooy am fugg bi mais mat nag moom mooy gunge mooy gunge ndaw. waaw mais moom moo doon gën ma jox la benn exemple du ma wax tuuru président bi ak dëkk ba dem demoon na ba situation métti. Mhm. mais président boobu lu ma wax dafa oo kilifa police ne ko bu ma sañoon ngeen oo seen ancien yooyu ngeen dajale foo leen d'accord si Ndakaaru rek si euh, dëkk boobu capital ba. Mhm. ak lu mu jaar rek dinaa ko fay mais dama bu ngeen toog fan yoo xam ne da ngeen di loolu seen biir ngeen waxtaan. effectivement euh, loolu la ñuy sa tara cetera je crois que ñun daal euh, moo ñu gënal ñu joxe sunu ñu baaxee leen seen xam-xam ñoom aussi am na loo xam ne war ñu ko mën a jox si ñu baaxee ko surtout ko léegi ñun ñu ngi si quartier yi moo tax même euh, quartier yi sax dañ ko war réorganiser waat. au lieu au ñuy jël maire bi di jël di nommer ay délégué de quartier léegi nga gis ñaari ñu yu jàkkaarloo sax na nañu organiser ba nga xam ne léegi quartier bi conseil de quartier mooy am. nga xam ne délégué de quartier bi dañ koy fal buñ ko fal léegi ci commission yi moo commission boo xam ne commission de sécurité la boo xam ne ancien commissaire bu fa ne ñu dénk ko ko ancien colonel gendarmerie bu fa ko je crois que a tax maillage bi am mais effectivement commissaire yaa ngi ni ñu ngi may dégg ñi dem retraite bu ñu sañoon effectivement vraiment euh, gannaaw naaxuñu gannaaw ñu ngi ànd ak seen xel xëy na vraiment bu ñu leen sollicité même bu dul état bi mais maire ba mu na leen sollicité et bon man moo xam naa xëy na kenn du ma wax parce que nee nañu dama contre <laughs> dama contre régime bi quoi <laughs> waaw man kenn du ma wax euh, léegi moo la da ngaa contre waaw mais parce que. da ngay wax sa xalaat xalaat rek waaye contre ma régime bi. d'accord waaw léegi euh, commissaire looy tàggoo. kontaan bu baax waaw euh, maa ngi jégalu daal ci askan wi ma doon déglu. Mhm. bon xëy na kaddu yi leeru trop. wolof bi xëy na xaw naa taq suuf noonu. Mhm. Euh, donc nañ ma jégal aussi fekk na gis nañ ko xëy na euh, ton bi ma doon waxee aussi dafa xaw a kii ñagas nañu xam ne noonu laa bindoo. c'est-à-dire mhm. que vraiment je suis quelqu'un d'entier ni ma xalaatee noonu laay waxee. Mhm. Euh, mënumaa tricher quoi te ñu nañu góorgóorlu ñu jàppale force de l'ordre yi waaw vraiment parce que ñu ngi liggéey liggéey boo xam ne liggéey bu rafet la d'ailleurs sax damay lancer encore un appel chaque fois bu ma amee occasion président de la république mhm. parce que moom moo yore yëf yi mhm. na seet daal nu muy jàppale police ak gendarmerie mhm. ci leen yokkal ci ay moyens gendarmerie ñoo nekk ci àll ba dana soxla vraiment moyens yoo xam ne dañuy mën a def projection à en profondeur ay hélicoptère ay oto yu baax ay 4x4 police aussi mu jàppale jàppaleen si dëkku taax yi quoi te ñu xam ne police ak gendarmerie vraiment par rapport aux populations ay partenaires nañu duñu ay noon mhm. waaw nañu jegeyoo rek pour ñu xeex insécurité bi daal jërëjëf euh, mbokk yi ñu koy sant bu baax a baax di ko euh, gërëm kooku nag euh, nekkoon Boubacar Sadio commissaire divisionnaire de la classe de classe exceptionnelle à la retraite mbokk yi lii moo nekkoon seen émission pencum réew mi tey ji si samedi ji juróom-ñetti fan ci weeru février atum 2020 Abdou Khadre Seck moo nekkoon ci micro bi Adama Diallo ci wàllu xarala gi mbokk mbokk yi ñu leen di jox dig daje samedi bii di ñëw jërë ngeen jëf